dañ leen a jële piste d' aviation bu Ouakam bëgg leen yóbbu fële parce que fii gis nga déjà ak ni ñu ko ni ñu ni ñu ko dégër piré daanaka dara desul fa toj nañu lépp euh, mécanicien yi ña fa amoon oto yëpp yoo génnewul gars yi yóbbu nañ ko fourrière donc mm-hmm. foofu lañ toll temps y avait déjà un processus qui avait été entamé pour jox ñeneen ñi ay titre de ca jam ñaajo mhm. jox leen ay béréb yoo xam ne ñoom dinañ fa mën a nekk continuer seen mais nag diggante wakam ba jam ñaajo bu sa oto paane ndakaaru loolu def ba dem foofee et cetera et yooyu yëpp ngi ci mais ñoom li ñuy posé comme problème mooy dañ ñoon mécanicien la ñuy toxal amaana ñoom xamante nañu si wala am nañu ay xibaar yoo xam ne ñenn ñu bokkul ci ñoom duñu sax laale wuñu dara ak oto ñoom dugal nañu seeni ay dossier boo dee dossier dañ ko dugal kese yem ca ñiy séddale nañ leen ci ro privilégié priorisé ñi nga xam ne ñooy mécanicien parce que projet bi loolu moo leen taxoon a jóg xam ne ñu ngi leen di jox wala ñu ngi leen di bëgg a jox ni ko mécanicien yi jortoo ñan lañu ak fu ñu bawoo ban lien la ñu am est-ce que dañu am bras long lan moo leen bokk booleeg Zampa bi nga xam ne mécanicien yi ñom ñoko mhm. situation koy et souvent malheureusement parce que ñi nga comme dañuy wax rek wax lañ ci mhm. bon mais quand même li je pense que baax dénoncer mais mhm. également dénoncer té ko est-ce que nous tam li ñuy wax am euh, euh, euh, souvent les véritables endroits, droit lii de projet bi <coughs> démb laa ci jokkoo moom mooy président Revas mm-hmm. projet bi ba léegi balaa ngay wax sax am na ñoo xam ne dugal nañ leen projet bi mën a la ba c'est le statu quo et pourtant le président inauguré na ko mais lan moo xew personne ne comprend démb ci guddi nañ ci échange moom mu ne ma projet dafa projet dafa am parce que bien sûr dégage à droite occupation yi nga xam tane mécanicien juste pertinence de ce mm-hmm. projets mais en plus de cela mécanicien yi dañ leen par rapport li ñuy tuddee électromécanique parce que oto yi léegi moo dëppoo ak jamono mais en plus de cela jox leen ay outils yu leen may di liggéey liggéey boo xam ne gu mucc ayib lay doon mais kon projet Bob mënoo ne am na solo léegi maintenant problème bi moom mooy qu'est-ce qui se passe Bob ba les ayants droit yi wala ñi nga xam ne ñoo bokk ci professionnel de l'automobile mais mënuñu am ba ces assez assez assez kii laa nar a tuddati infrastructure yooyu nga xam te ni tabaxal nañu 62 hectares à Diamniadio Benen bi moo Tay, Zampa bii nii dañ ko waroon démultiplier je ne dis pas peut-être communal mais à l'échelle départementale hmm. pourquoi nous regrouper les mécaniciens et d'ailleurs une partie de cette bande de mécaniciens, nous fa de mécaniciens pourquoi on ne peut pas faire autant ainsi de suite ainsi de suite même ça peut participer Nous nga xam ñi à Dakar du fi daan si nous lu mécanique mais ça participera à les fixer si c'est une terroir nous fay mën également di dimbali oto yi nga xam ne mi ngi fa personne ne comprend projet bi mi ngi en cours président inauguré na ko mais boobu ba léegi changé nañ ministre ba beneen ministre di ñëw na certainement avec ses considérations après fu muy mujjee moom seba day naaxasaay alors euh, euh, elage Hadj euh, wàllum projet boobee gis nañ ña nga mécaniciens yi tàmbali nañu en yenn ci mécaniciens yi tàmbali nañ jot nekkoon ak ñu jaaja nga ca gis nga mbirum suuf yi loolu lañu wax ci bandu kii. filaawu euh, Jawaay. xam nga dafa am ay équipement yoo xam ne ñun moom lañ fa fekk ñu ne université am na tamit benn euh, kër Serigne Touba gi am na tamit benn euh, grand théâtre ay yu bëree bëree bëri bëri mais gis nga bay géejawaay yenn ci ay kilifa nee nañu mooy deuxième armeel bii mm-hmm. amoon na bu amoon amoo tefes mm-hmm. ñenn ñi ne bii mooy armeer ay sëg ba ñu tuxusee léegi mille neuf mooy officiellement 7 juin 67 mooy officiel mais am nañu fa ñu ñëw Gunaas avant 1967 et ba léegi nii xam nga fan la mbir mi di mujjee hmm. xam nga fa mbir mi hmm. genn wàll miir bi mooy daanu promoteur yi di jege si di jege si ba armée lee nax saay hmm. ñu lotissé armée à d'autres gis nga li xoolal détournement d'objectif. lotissé ba lotissé armeel yi. bii mooy ñaar bii bii mooy ñetteel ñii ñenn ñi ne bii mooy ñaareelu armeel bii ne ñetteel imaam yi bañ fa tàmbalee bëgg bëgg a suul ma ne leen mënuñoo jëfandikoo armeel yu amul toilette ñu tabax toilette yeeg yëpp. imaam bi woo man président délégué de quartier yi Amidou Diallo comme que moom mooy nekk ak imaam yi yëpp. beneen armeel yaa ngi bisimilah la taxoon commencé wul. commencé leen nañ leen fi commencé di dégg suñuy néew. gis nga miir bi camion jaar na fi ma dama japp ne yefuma tay la miir ba daanu ñu jégé jege si jege si jege si jege say tay légui nak livré nañ leen ko pour wa géej wa yépp xam nañ ne am nañu buñ ko utiliser alhamdulilah buñ ko deful ñun suñu jaan wàcc mais gis nga affaire may wax ni nañ dem ba ci kanam ñom la gëm jarul laaj ay preuve de fofana nan di preuve c'est moi ci li ñu wax ak yoy nañ dem ba ci bir mécanicien yooyu ñu wax ne nañ leen indi seen i ñu toxale dugg na fi politique yi ñoom ñoo jël seen i kayitu nit ak dugal ca biir mécanicien ya nañ dem ba ca kanam dañ ko gën a gës jaajëf 8h30 euh, El Hadj Ahmed Aïdara rendez-vous am euh, ci tës lay doon 89 point 7 da nga bëgg a jël ci làmb waaw làmb ci moom cof ci ay mu nekk ni moom wax fa dëgg sport sport mm. dafa am lu mu laaj sport dafa am lu mu laaj laaj na hygiène de vie en traitement. mais gis nga liñ une constance personnelle. toog ci benn gis nga ñoom Papis Xarañ Lo ñi nga gis ak ñoom Xaadim Gajaga ak ak ak. waaw mootloo ñi mo andalon ba léegi ni te fi mako gëna nawé a Moussa Sy il était la mère mais comme que mom rock énergie la ñom Demba Dia ñoom ñoo ko créé won ca jamono mais musul changé digganteem ak Demba Dia wax dama naan la gore gi mu gore rek mën na koo may lii ñun fi ñu dëkk ñun dañu am ay mbër mbër yooyu ku ñu dajeel ñun yow la ñuy faral waaye nag wax sa qualité ak sa ak gonay roy ci moom du yàq si sa mbaax dara ñun ku ñu xam-xam ne ñoom Balla Gaye ñoom ñooy su gis nga Modou Lo mii lenn mayu ko li mu am lu dul constance point final ak yaram ak yaram way balaa may dee ñu naan ay nit ci suuf way mbër da nga war a doon caay-caay journaliste bi sax caay-caay ci micro waxuñu toog ci micro di saaga ak yooyu waxin la waxin la gore téye fi nga téye tôt ou tard yàlla ji day dikk waaye nit ñoo xam ne mel ni xob neex ak këf koy bëgg a dee doon dimbali daaw jéeg ak daaw ak jéeg yëpp ah jaaykatu éponge jaaykatu éponge bu la ngelaw li nga ne nii nga ne nii nga ne na ko téye fi mu téye couronne bi moom de yéen waa Thiès kañ la couronne bi di ñëw ci yéen sinon <laughs> yéen a xam ngeen mbër. Oh. ñun de waa Tëngéej ñoo ngi xaar a neex andi ñu ko xaw ma nag yéen. waaw bi passé jàmbaar la. te am nañ fi ay ay ay mbër yu ndaw ñu mel ay gàmmu gayax ñoom seen. mais Modou Lo am na tànk Thiès. man de sama yaakaar gi Modou Lo am na tànk waxuñu waxuñu ngeen lak yaakaar gi moom bu yeboo léegi ñu lal ko ci ñaamu ndaw. mais <laughs> kan waaw oh, mi ngi la nga am si Lo naa am ay mbokk Thiès sama mbokk la déjà. moom sama mbokk la waxuma sax Thiès gi ñu bokk. mais mais déjà sama mbokk la yaayam ah, mbokk sama mbokk la voilà. mais am na na ay ah, mais Sénégal ñu boo ah, na boo xe boo xefee am na bu fonk mais nag mais nag li Ameth wax lu jar a suuraale parce que boo gisee action bi démb. moom bu amul du ci génn. la ilaha illallah. bu amul woon entraînement du ci génn. voilà entraînement la rek. gëm sa bopp liggéey. sport de combat. secret sa waay. et puis et puis deux deux victoires mois. la def eh, eh. deux victoires en deux mois. ñaari combat nga dékku ko ci ñaari weer. ñuy jël dañ doon jëli mbër di yóbbu esaat. waaw xam nga li yor équipe bu nawetaan. ñun mouvement associatif dañ cee bokk. Mhm. déggoo ma de ku wóor gis ko. moo Modou Lo àndaloon démb ñoom la àndal tay ba ba léegi. sa nit yi dem ba jaajëf waay maa la wax loolu dongaloon dem si yàlla maa ngi nuyu Malick Gakou ñu koy nuyu bu nga sonn ci waa Guédiawaye am lay fa bu mag fële ca Fan City je crois waxtaane lu jëm ci wàllum élection suñu mag ju baax ñu koy nuyu baax lay fa bëri na si ñu ñuy teewlu eh, jamono ji bu jotee jërëjëf ñu waxtaane tolluwaay réew mi Ahmed Touré ci Goundoy jaajëf si moo doomu Thiès à ni ngeen ko waxee Modou Lo kon nag moo téye titre euh, roi des arènes ba waat mu mel ni kon Equivox énergie bu Parcelles Assainies la bokk door na démb Boy Niang 2 bu euh, combat la bu nga xam ne démb seetaan nañ ko en direct